ñu wala Lamine ndaw dix heures commissariat de police pour entendre ko bañ ci paré ñu ngi fi ni indi ko tribunal indi ko ci procureur té loolu duñ ko nangu lami ndaw dara waral ko lim fi ñëwé marché ko taxu jog lami ndaw kessé liggéey kat la lami ndaw kessé jaay rek la xam Lamine koy ñëw lami ndaw kessé talibé la Baye ñess jaamu yalla rek la xam lami ndaw tey bu ñëwé fi di wax ci touru marché central Kaolack kon marché central Kaolack moko fi duggal kon nag li ñu bëgg na ñu xam ne ni marché central Kaolack mooy Lamine Ndao lu ñu waaw monsieur le journaliste xanaa gisoo ñu ne fi nekk dañoo liggéeyut te duñu duñu dañoo tëj marché duñu fay abonnement fu mu yem neex ah tant que liggéey Lamine Ndao ñun Lamine Ndao duñu bàyyi duñu ubbi te duñu fay abonnement te dinañ fexe nag ba marché kenn du ci fay abonnement te ñoo dee marché de Kaolack mu ngi ci ginnaaw te taxaw nañ pour def loolu